waaw ñu ngi ci sunu tournée bi nga xam ne la ñuy tournée waajal nawet mu nekk campagne national de prévention ndax tawagul fii ci Ndakaaru mais dañoo bëgg balaa moo taw lépp lu ñu war a jël comme matuwaay ñu ànd ak ñi bokkal liggéey bi yëpp ñu mun ko jël ndax loolu lañu président de la république son excellence euh, Macky Sall sant ci liggéey boobu tey ci région de dakaar la ñuy ñëwaat ndax tournée la boo xam ne nii bés bu ne dina am béréb bu ñuy tànn teg fa sunu tànk donc ñu ne tey ci région de Dakar département de Dakar la ñu tànn mooy remercier aussi le préfet de Dakar ci accompagnement bi ak monsieur le ci liggéey bi bi ñu ñëwee fii si département de Dakar am na ay points critiques comme ni ñu koy faral di wooye yoo xam ne at mu jot su tawee day day am jafe-jafe ci point yooyu bi ñuy tàmbali dañu njëkkee Cambérène dem fekk fa xalif général këram pour tàmbalee fa suñu visite fii si département de Dakar sàkku fa ñaan bi ñu fa jógee dem nañ fi nga xamante ne tii mooy mooy euh, Yoff ndax Philippe Maguilène Senghor zone boobu gis nañ ne at mu jot day am ay inondation yu fay am donc président de la république santuñu ci ne dañ fa tàmbali ay liggéey xëy nag liggéey yooyu bu lépp parewul bëgg nañ daal la ci ëpp ñu mun ko tàmbali def si ay jéego yu sori balaa ñoo dugg ci biir ci biir nawet bi. donc beneen yeneen zone yi ñu dem mooy fu mel ni Wakaam kanaal bi pour ñu def curage bi nga xam ne loolu day dimbale askan bi bu taw ndox mi ñëwee mu am yoon bu mu mun a jàll te du am fenn foo xam ne ni dafay tag tey ñu ñëw aussi cité Bellevue nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci jafe-jafe yi nga xam ne da ko daan dund nga xam ne yenn saa am na inondation yu métti yu daan am nit ñi fay nekk ay zodiac la ñuy déplacé président ne loolu dafa bëgg ñu def ci saafara mooy une solution définitive am na nag dispositif de pompage boo xam ne at bu jot dañ koy teg mais dafa santaane ne dañ fa def benn réseau d' boo xam ne mooy permettre quartier boobu noonu ñu génn ko ci jafe-jafewu ndox loolu aussi entreprise bi engagé wu na ci ay délai ne moom mooy saytu liggéey boobu noonu pour tey a ñaawee ñu fexe def ci ay jéego bu dul lépp pare na sax ñu xool lañ ca la ca ëpp ñu mun ko mun a def d'ici hivernage bi di installé wu euh, fii ci euh, département de Dakar fii nga xam ne rek la ñu mujjee muy la zone de captage moo teree nelaw population wu Ndakaaru yëpp du ma wax sax Grand yoof du wax aan ndax ndox yi daan génn ci bassin bi moo daan dem fekk nit ñi seen kër di ko nangu président ne loolu dafa bëgg mu jeex ci bëgg mu jeex bi nag mu am ay travaux yoo xam ne nii dafa demandé ñu engagé ko nu mu gën a gaawee mooy fii ñu fexe def curage bassin bi ndax bassin bi gëj nañ ko curé yokk capacité de stockage am nga xam dinañ dem ba lu ëpp cent cinq mille mètres cubes de capacité de stockage bu ñuy mun a denc ndox mi mais à côté ñu renforcer aussi li nga xam ne nii mooy pompage bi ndax am na tey station de pompage ay pompes yoo xam ñu ngi fi pour tey mun di manque ndox mi di ko yóbbu mu dem géej loolu aussi sàkku na ci projet bi nga xam ne la ñu war a def ñu jël ndox mi nga xam mooy nekk fii ñu mun ko yóbbu géej ba déborde ak mur de clôture bi donc ñu fexe ba nga xam daal débordement yi nga xam moom la ñu dundoon daaw ñu bëgg ñun ñëpp ñu ñaan yàlla loolu mu bañ a amati te lépp lu ñu ci war a jël ko matuwaay président de la république joxe na ko joxe na santaane bi ñun ñi nga xam ñu ñooy ay ndawam ñun aussi ñu ngi ànd ak ñi nga xam lañ seqal liggéey boobu yëpp muy service état bi yëpp pour ak entreprise ñoo ko war a liggéey ñu fexe ba loolu président joxe comme santaane ñoom ñu ko mën a exécuter dans les meilleurs délais. déjà ku ñëw fi gis ne tàmbali nañu donc mooy waree ne am na prise en charge du problème mooy problème bi jël nañ ko te matuwaay yi mu laaj tàmbali nañ ci liggéey boobu noonu. léegi nag travaux yi ku ne xam ne ne travaux d' assainissement nekkul travaux yoo xam di nga ko mën a def ci ñaari fan wala ñetti fan loolu aussi day baax ñu wax nit ñi dëgg. mooy tey liggéey la boo xam ne tàmbali nañ ko te ci tàmbali bi rek dina ay résultats ndax lii def fii comme liggéey fii ak diir boo fi ñëwaatee dina yokk doole bi nga xam ne moom la bassin bi amoon yokk capacité de stockage am tey buñ ko boolee li nga xam mooy renforcement wu station bi andiwaat yeneen pom gëm nañ ne dina am lu bëri lu mu wàññi si jafe-jafe ne nag du am loolu moom du nekk engagement bu ñu mun a jël ndax tey loolu day dépendre tey ci pluie quantité pluie yooyu mun a jot yu exceptionnel du ñàkk mu am ay désagrément te loolu moo am fépp si àdduna bi yaa ngi lim ay dëkk am na yeneen dëkk yu gën a mag yu gën a développé yoo xam ne tey am na situation exceptionnelle yoo xam ne am ndax li ñuy wax changement climatique mooy alam bi ni mu wëlbatikoo dina andi yenn saa ay phénomène extrême yoo xam ne nii fu daan am taw bu tuuti nga ñëw mu am ay taw yu jéggi dayoo bu ñëwee du ñàkk mu jur ay jafe-jafe mais nag matuwaay bépp bu ñu war a jël ndax ren dañoo teela a tàmbali depuis le mois de janvier le 17 janvier la ñu lancé suñu campagne nationale de prévention bi nga xam ne ni moom la ñu tuddal waajal nawet donc di dem ci dëkk yëpp ci Sénégal xool matuwaay yëpp yi ñu fa war a jël ba bu inondation wala hivernage ñëwee inondation duñ ne du am mais bëgg nañu mu néew jafe-jafe yi mu daan jur population ci population mu néew ci comportement yi nga xam ne ni askan bi dañ ko war a jël jàppale ci autorité yi ci wàllu euh, fépp foo xam ne ni dañ fay tuur ndox fi nga xam ne dañ fay def ay mbalit ak loo xam ne ni day nekk lu jur jafe-jafe ñu sensibiliser leen si ànd ak collectivité territoriale yi ñoom aussi ñu taxawal ay plan de contingence waajal seen bopp ndax ñoom aussi dafa am role bu ñu ci joué état central jóg taxaw projet ak programme yi nga xam ne yëpp président de la république moo koy def ndax mbiru xeex mbënd daf ko def priorité am lu am solo lu mu ci def ci programme décennal de gestion des inondations nga xam ne bëri na ay zones yu métti woon tey boo fa demee gis nañ ne tey dina taw ñu ñi buñ paree ñu dox seen soxla mun na jël exemple Dalifort mun nañ jël fu mel ni Médina Gounass mun na jël fu mel ni benn partie si Djiddah Thiaroye Kaw ba ci Wakhinane Nimzatt wane ne président de mu ngi liggéeyal sénégalais yi wàllu inondation inondation na xeex bi doo xam ne benn fan processus la at mu jot jamono bu jot day am ay jéego yooyu def ngir tey jafe-jafe yi ñu daan dund muy wàññeeku donc tey amélioration boobu lañ gëm ne incha allah rabbi dina am ren ndax tey jéego yi nga xam ne ñu ngi koy def te point yi ñu wax nga xam ne mooy point critique yi nga xam ne département de Dakar moom la am muy Philippe Maguilène Senghor mooy li nga xam mooy cité Bellevue mooy fii nga xamante ne tey moom mooy zone de captage yooyu yëpp président de la république joxe na ndigal pour tey travaux yi mun ko démarrer très rapidement ba mu mun a nekk luy soulager population yi nga xam même bu ñu jeexalu lépp ñu am loo xam ne ni dina wàññeeku ci jafe-jafe ñu daan dund.